xam ngeen ne li ñu tuddee code de la famille bi mu ci réew mi ay magu diine ñoo jógoon xeex lu mel noonu ñu mel ni sëñ Cheikh Mbacké ñu mel ni Cheikh Hadji Abdoulaye Ibrahima Niass ak ñu mel ni Cheikh borom Daaru Musi ak kilifa diine yëpp ñoo soloon seen dàll xeex code de la famille ma ne mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ne colonialiste yi bi ñu nekkee mag ñi daan nañ bindante ñoom ay lettre arabe leen bind lettre arabe ñuy tontu ñii Amadou Diouf yi ñu ngi ko fi gisoon nañu ne réew mi ci wàllu diine amoon ci tribunaux yi loolu mbokk yi ñu xewee tey juróomi dafa mel ni amatul kon dafa mel ni colonialiste yi li ñu nanguloon suñu ay kilifa li ñu ne colonialiste yi nanguloon nañ ko kilifa yooyu ñoom tey dafa mel ni dañ ko bañal xam ngeen ne Macky Sall mii am na article quatre-vingt loo xam ne moo koy aar suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen diine am nañ ñu tuddee ministre de culture nga xam ne tey ñoom lépp loo xam ne kilifa boobu ñi def na ko am na article boo xam ne ci biir constitution moo koy aar te ñun symbole yi ñu am. mooy suñu mag ñu baax ñii nga xam ne dañuy tënk nekk ci alquran ak sunna kon dama jàpp ne ñii wax ne mag ñi li ñu nekk bidaa lañu dégguñu alquran dégguñu sunna parce que dañu al ulama warasatul anbiya yi borom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonent yi sama day say say si jóg di manqué respect di ñàkk a teggin kilifa diine te yemale ko sa kilifa benn taree dañoo boole fekk ba suuf bi ba Cheikh Ibrahima Niass ak Touba Xaadim Moustapha di laaj maa ngi si ak ñëpp ñu leen takkal fànne di wax ay yéen di yéen ci seen wàll di ko def nag def boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman li ci gën a métti nag ñu koy wax ne ay jullit parce que bu ay métti bu mën ko kon waaye man ak tuuti lu war a lu war a jotee ak kilifa yu tedd lu jullit jotee ñoom ba leen di wax wax ci ñaar may laaj jullit dina saaga ko waxuma laa moromu ci kilifa yu toll loolu moo waral tey ko wane di ko def d'une manière pacifique yaakaar ne état Sénégal dina jël responsabilité protéger kilifa yi protéger ko protéger suñu ay institution loolu moo waral suñu marche benn julli ba Senghor doon def ne suñu Fall ak suñu Babacar Si bépp bés bu ngeen jàpp moom la ñuy def mu nekk il faut que ñu Imam Malick su ko Maroc defee donc loolu mooy seen sécurité pour ren Tanzanie bi mu ñëwee beneen ci musal mooy yàlla ñu jëlee ko jàpp yoo xam ne jàppale ko soxla ay semaine ñu ni yoo xam ne comme dañ ne réew may ñi ko déglu am na ci ñoo xam ne ba fii may wax ak yow di jóg yàq rek mënuñu naan ngir ay kàddu yu ñaaw suñu demee waaye nag yëkkati sa kàddu ji lay nekk jàpp ñi nga xam ne ñooy suñuy suñuy suñuy symbole ci ci ci leen wax wax naa ci audio yoo xam ne man si ñoom man sama bopp am na ñoo xam ne mën nañu ko dégg rek dañu ne nii man jàpp ma ne ñu bàyyi si biir la waaw kon nag képp koo xam ne kii bëgg nga jàmm mën nga ci génn jàpp soxla nga xam ne xam nañ leen xam nañ leen ndax li tax ñoom fay wul seen seen bopp mooy réew dafay dox ci ci ci ay sànq sécurité réew mooy nga am loolu naqari wane ko ginnaaw ñoom saafara wu léegi nag jóg na nun ci saafara di wax loo xam ne dafay yàq pas-pasu ndaw ñi di tàggali nit yi ñoom ñooy def bu koor jotee ñu dem wori ci biir weeru koor walbati ku naan ku woor ci biir weeru koor ama ma ne leen ku woori nag ci weeru koor yaay kan ñoom ñoo koy def rusuñ loolu beneen bi ci mooy ñooy di rey nit pas-pas boobu di ko bokk ñooy rey nit ñi jàpp jàpp ñoom moom mooy seen bopp da ngay bañ da ngay bañ nit ñi foo toll yaa ngi am beneen foo dem benn gàttal sa tubay sa sa sa jàpp te bu boobaa dalee seen kàddu gi jërëjëf